الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم mbokk yi nu ngi sant sunu boroom di ko bàkk di ko kañ di julli di salmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan sunu boroom dëkkee dot ci waamem xéwal ci kaw yonente boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain mbokk nu ngi dénk sunu bopp di leen dénk ragal yàlla nga xam ni loolu rek moo mën a muccal nit ki saabu dajeeg boromam foofee nga xam ni amut kenn ku ko mën a dimbale wala ku ko mën a jariñ wala ku ko mën a wettile wala ki ko musal mën a musal ci mbugalum sunu borom ak i tiis yi xem ci xew ci àllaaxira lu dul ragal gi nga xamante ni ragaloon nan ko sunu borom fii ci àddina yàlla na sunu borom boole ñu ci ñu koy ragal nu fàttaliku ni ci jamono yàgg ya bi subhaanahu wa taala daf daan yónni ay ci kaw suuf ba ni mu yónnee sunu yonent alayhi salaatu wasalaam mu nekk mujjantalu yonent am na yonent bu yàlla yónni woon bu ñuy wax Ibrahima alayhi salaam sunu borom yónni waale koo xam ne doom la ci moom muy Luut alayhi salaam nga xam ne Luut baayam ji ko jur ak baayu Ibrahim ñoo bokk ndey ak baay kon Luut doom la woon ci Ibrahima alayhi salaam borom bi def Luut gëm Ibrahim. sunu borom daal di koy boole waale mu nekk ci ay yonent fa amana lahu luut comme ni ko sunu borom di waxee luut alayhi salaam ànd ak ibrahim dem ca misra ñu jóge fa dem saam borom bi baaxee leen wërsëg wu yaa ci alal ci ay nag ak ay xar ak ay jur ca la luut daal di sàkkoo ci ibrahima ni ko ah comme barab bi xat na te jur gi dañoo aajoo fu ñuy wëttee ndax doo ma jox ndigal ma dem ci beneen barab may daal di fay sanc baayam jooju di Ibrahima jox ko ndigal ca loola mu daal di dem Luut di wër ba dajeeg ab dëkk bu mag ca dëkk yi yooya ca jamono jooya ñu koy wax sa Sadduum Luut daal di fay wàcc ndeke fa mu wàcc day ci coobare sunu borom la tege waaye fekk na fa aw nit woo xam ni ba sunu borom sàkkee baay aadam ba ca jamono joojee ba keroog àddinay tukki. du am ay nit yu leen gën a yées waaye du am ay nit yu leen gën a bon ca ña dëkkee ay nit yoo xam ni bokk na ci seeni màndarga mooy ñoo fi njëkk indi lii nga xam ni mooy dogaare nit ci yoon agressé ko nangu alalam wala paat ko ñoo fi indi xeeti mooy yàlla yi nga xam ni dafa ruslu lool te doomu aadama di ko def ci mpénc ñëpp di ko gis bokk na ci yiñ fi indit ay xeeti mbir yoo xam ne yu doyadi yoo xam ne làmmiñ sax rus na koo nettali noonee luut ci cooba rek sunu boroom daal di wàcc ci seen biir ah ba mu yegsee mu xam ne fi mu nekk nii nag am na liggéey mu tàmbale di jokkalante ak ñoom ci di leen waar ak di leen fàttali ndax ñoom kat bokk na ci mooy yàlla ga gënoon a fës nga xam ne borom bi seere na ci alquran ni amul ku leen ci jiitu mooy góor ca ñoom du soxla moroomum jigéenam ngir ànd ak moom ci sëy waaye góor daf doon soxla ji eh, moroomum góoram di sëy ak moom bàyyi fa jigéen ña loolu nga xam ni jàpp naa ni ñi seet mën a seetlu dinañ seetlu yi ndekete ci jur gi ci rab yi ci njaay àll yi am na ci rab yoo xam ne néew na te li may wax ñi yaroo ci àll dëgg dëgg dëgg xam nañ ko nga xam ne da nekk ak jur gi am na ci jur goo xam ni même bu ñu nammee sëy ak seen morom sax bu buñ la séenee dañuy bàyyi loola am na ci jur goo xam ne néew na nga di leen séen ñuy sëy ak seen morom am na ci jur gi ñoo xam ne même bu ñu nammee am doom boo taxawee bu soobee yàlla du ñu am doom ci sa kanam loola kon am na ci rab yi ñoo xam ni borom bi def na ci ñoom jom ju mel noona waaye ñoom xotteeku jom googa moo nekk ca ñoom su ko defee ñuy sëyant ci seen biir ñoom góori neen luutu alayhi salaam dikk nag xam ni ab liggéey taxaw na mu di waar di leen fàttali borom bi subhanahu wa taala dafa bokk ci ni muy doxalee ci kaw suuf mooy du mbugal wenn xeet lu dul dafa yabal ab yonent ci ñoom mu di leen waar di leen fàttali ak di leen leeral ci li ko yàlla dénk ci ay xeeti xereñte ngir ñu wéetal ko moom sunu borom bàyyi la nga xamante nii moom mooy mooy yàlla waaye waar day fekk mu tàbbi waar gay jariñ day fekk mu tàbbi ci xolub koo xam ni borom bi namm na ci moom gindeeku sunu borom boo delloo ci suurtu nam li mu ni ba leen loot waaree ba noppi day tegaluñ ko ca lu dul yow de boo wëccuut dëkk bi sax lan lay génne ndax doxandéem rek nga fi fa ma kaana jawaaba qawmihi illa an qaalu axriju aala luutin min qaryatikum innahum unaasun yatataharuun yow de boo wëccuut dëkk bi dañ ko génne ndax barki démb rek nga fi ñëw ab doxandéem nga fi tey it lii ngay jéem a jaay di gën a sell sell lu ni ñi gënoo sell kenn sunu borom ni loolu la ñu tontu luutu alayhi salaam waaye comme yàlla dafa def ab yonent moom du gaaw a découragé te it moom sañ te bañ a woote te du gedd lu daal di continuer rek ca méthode ya nga xam ni moom la yonent yàlla yi alayhi salaatu wasalaam doon wootee ci xerañte ak dal ak am yërmande ci képp koo xam ni ma ngay moy sunu borom ndax xam nga muy xam fam nar a mujj ëllëg ñu continuer ci seen mooy yooya comme ni ko sunu borom di waxee ci suratu Shuara nga xam ni bokk na ci saar yi mu ko yaatal ndax histoire bi boo delloo ci alquran ci fukki saar yu mat sëkk suñu borom tudd na ko fa yiisaa da koy mboros rek jàll yeesaa suñu borom da koy leeral ba mu leer lu mel ni surtout Shuara sunu borom mu ne ah nit yonent yàlla luut day ñoom weddi woon nañ yonent yàlla ya ndax ba leen seen mbokk ma luut wooyee ni leen ey eh, yéen tee ngeen a bàyyi li ngeen def ngeen ragal seen borom man de yonent yàlla laa boo xam ne bu wóor laa jëm ci yéen ragal leen yàlla te ngeen topp ma te ngeen xam ne li ngeen am ci alal soxlawuma ci dara laajuma leen dara saak yool ak saak fay mi ngi koy saak maa ngi koy saak sama borom mu ndax yéen da ngeen di dikkee seen moroomu góor te bàyyi fi jigéen ñi te bàyyi fi li nga xam ni moom la suñu borom sàkk ci yéen yéen day ay nit yu bon ngeen ay nit yu jeng ngeen gars yi ni ko gis nga luut lii ngay wax nii soo ko bàyyiwul la takunanna min al muxrajin fi ne dëkk bi lan lay génne luut alayhi salaam mu ñu leen inni li amalikum min alqaalin dëgg dëgg xam na yàlla de seede na ne jëf ji ngeen di def jëf la joo xam ni bañ naa ko sib naa ko dama ci mënut dara ca la waxee rabbi najjini wa ahli mimma yaamaluun yow sunu borom maa ngi lay ñaan nga musal ma maak sama njaboot ci lii nga xamante ni mooy jëf ju bon ji ñii di def kon luutu alayhi salaam mbokk yi ci dëkk boobu mu dikkoon muy saddoom borom xam-xami histoire yépp dëppoo nañ ci ni ñoom ñooy ñi njëkk andi ngóor jigéen ci kaw suuf muy góor di sëy ak moroomu góoram ba ñu ko defee borom bi subhanahu wa taala ci méthode bi mu waxee ñoom ci alquran ñi jàng te xam balaaxa xam alquran ni mu jotee ak ni muy waxee ni mu xóotee waxin wu wu dal waxin wu metti waxin woo xam ni day war a ni ñii kat jëf ji ñuy def ëpp na borom bi subhanahu wa taala mu ni a innakum la ta'tuuna alfahisha mu ndax yéen yéen a fi indi caay-caay goo xam ni maa sabaqakum biha min ahadi min al alamin yéen di li yàlla jot a sàkk ci kaw suuf amul ku leen jiitu ci xeeti caay-caay jii sunu borom mu ne moo tax da ngeen dikkee ay góor bàyyi fi ñi nga xam ne moom la leen seen borom sàkkal ah yéen wax dëgg yàlla ay nit yu yées ngeen ay nit yu yàqu ngeen noonu yonent yàlla luut alayhi salaam continué ca waaraate ga ndax comme ab wootekat jottali rek ko war sunu borom def ab bés rek ay malaaka ni janeet ci kër ibrahima alayhi salaam séq ak ibrahima lañ séq cay wax ci alquran di ko nettali ndax taxu noo jóg tey ibrahima amuk jaaxle lool ndax ay nit la leen tegoon dugg ca gétt ga indi gàtt rendi ba fees lakk ba tegal leen jàpp ni ay gan lañ ah ba mu gisee gan ñi kenn yootuwut bool ya ibrahima siggi xoolaat leen xoolu ku jaaxle ca la ko gan ñi nun de ay nit nga nu teg waaye du nu ay nit nun ay malaaka lañ yoo xam dañoo bàyyi ko suñu borom moom la suñu borom ne fa awjasa minhum xiifa Ibrahima jaaxle lool qaalu laa taxaf ñu ne ko bul jaaxle benn bi mu ni wa basharuhu bi gulaamin xalim beneen bi mu ni qaalu inna ursilna ila qawmi luut ñu ne ko ñun day dañ lay bégal yow amugoo woon doom suñu borom nee na dana la may doom ñaareel bi ñu ne ko bul jaaxle ñun de ay nit lañ yoo xam dañ fay jaaroon dina la siyaare rek waaye ca luut lañ jëm alayhi jaaxle googu mu am nag ba gan ña yegsee ci luut tamit luut daf koo jaaxle ñaar yëpp ñaari jaaxle yëpp alquran tudd na ko bi gan ñi yegsee ca kër luut alayhi salaam ba ñu tolloo ci buntu dëkk ba ci la nit ñi commencé wootente daw si leen am na lu xew mbooloo ma yëpp daal di daje ndax gis nañ ay góor yoo xam ni nañu xeesee ni seen xar kanam yi nëtëxee na seen kawar yi guddee ak nañu njoolee melokaanu nit yooyu ñoom musuñoo gis nit ñu rafetee noona ndeke ñooñu ay malaaka la ñuy soppiku ci jëmmi doomu aadama ndax malaaka day def loolu jibril da ko doon def ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi gan ñi ba dugg ci dëkk bi nit ñi commencé di sarxollee ka yuuxu di wootante ci seen biir ngir nañ yegsi kat kër luut luut am nay gan ay gani góor wootente ga daal di wal ca dëkk ba gan yëpp daal di nit ñëpp daal di yegsi kër luut alayhi salaam moom la sunu borom naan wa jaahu qawmuhu yuhrauna ilay daanaka tappaatu kër ga sax muy sàkkedoo ba ñu yegsi am na ñoo xamante dañ koo fallaxi sànni fële jaaruñ sax ca buntu ba ndax yàkkamte yegsi ci gan ña bi ñu yegsee ku mel ne alxaafid ibni kathir rahimahullah boo delloo ci albidaaya wa nihaaya mi ngi nettin histoire bu ni mel mu ni fekk na booba jibril alayhi salaam moo jiite mbooloo waaye mi ngi mer lool mer mu jéggi dayoo sax waaye nag mu ni tekk rek di leen xool nga gis nit ñaa ngay sar xooleeg ña ngay di daw di songu gan ñaak kenn ku ci nekk di woo moroomam suñu borom mu ni walamma jaa rusuluna luutan siia bihim wa dooqa bihim zaran wa qaala hada yawmun asib lut am nay gan yoo xam ne ku leen gis konta waaye ba leen lut gisee day aw tiisa ko jàpp ndax xam ne nit ñu saay saay ñi nar a ñëw tey ci kaw ganam ñi la ñuy dal te kon dinañ ko teg gàcce goo xamante ni taarix mësta nettali lu ni mel ah bi loolu amee luut alayhi salaam daal di dimani koo boroomam ca la waxoon law anna li bikum quwa aw aawi ila rukunin shadid man ne bu amoon kàttanu jële leen fi saagaagal leen yéen ñëpp wala mu am ñoo xam ni bañ nañ lu bon li may bañ ba dimbali ma kon de tey jii dinaa dimbali koo ñooña ngir jële leen fi ah bi loolu amee sunu borom mu ni nit ñi daal di leen jikkal wa min qablu kaanu yaamaluuna sayi'aat fekk lu ko jiitu ñoom dañ doon ngóon ci génnante ci seen biir qaala ya qawmi haulaai banaati hunna atharu lakum loot mu ni kaay leen samay gone yi jigéen a ngi nii foofu nag ñi foog ne loot dafa woo gaaye ci ay doom yi jigéen juum nan loolu ak caay-caay la ci kaw caay-caay loot du def loola ab yonent bu taxawee ci xeet mooy taxaw taxawaayu bàyyi kon képp ku fa judd ngay góor ngay jigéen doom nga mën a nekk ci moom waxin wa waxin wu xóot la ku am xamul alquran doo ko dégg loolu mu ni kaay leen ci sama doom yu jigéen yi doom yu jigéen yi mi ngi ci namu mooy njabootu doomu aadama yi fi nekk yépp ngeen takk ca ñooña ndax loolu loolu moo leen gën a lew fattaqullah ragal leen yàlla wala tuxzuni fi dayfi bu leen ma gàcceel ci sama gan ñi alaysa minkum rajulun rashid yéen xanaa kenn ku am lu muy bañ lu muy rus ci mbooloo mi qaalu gaa yi ni ko laqad alimta ma lana fi banatika min xaqin wa innaka la taalamu ma nurid waaye luut yaa ko tay waay xam nga ni ñun amuñ aajo ci ay jigéen yow yaa gën a xam li li nu tax a jóg ca la luut waxee law anna li bikum quwa aw aawi ila rukunin shadid noonu luut alayhi salaam di xëccanti ak ñoom ñoom it ñuy bifanti ak moom ngir jëm ci gan ñi gan ñoom ñi ngi ni tekk rek kenn yëngatuwut alxaafis ibni kathir mu ni fekk jibril mi ngi àndoon ak mikail ak asrafil nee na ñoom ñëpp ñi ngi di fatt rek toog benn place di leen xool ñoom ñoo ngay falaxis ak ci kër ga di buuxanteeg lóot ci buntu kër gi waaye ñoom ñi ngi toog rek defuñ dara noonu rek lóot am ak jaaxle xam naa na ay bëtam di jooy qaalu yaa luutu inna rusulu rabbik fekk booba yépp nag luut moom xamul woon ni ay malaaka lañ jàppoon na ne ay nit yi simple lañ ci la ko gaay inna rusulu rabbika ñun day ay malaaka la ñuy bàyyi koo suñu borom lan yasilu ilayk gis nga ñii duñ la mënal dara fa asri bi ahlik bi qitain min al layli wala yaltafit minkum ahad bu xaaji guddee takkal say bagage ak say kaaka li nga fi am te jiital sa jur te nga génn dëkk bi tey sax buy génn nag booy génn bu kenn geesu di xoolaat sax dëkk bi foofu borom xam-xam yi dañ cee wax ju ñor mufassiruna rahmatullahi alayhim dañuy wax ni maanaam mooy yàlla ci boppam dafa mel noo xam ni saabu bu nit ki waaroo wala mu dellu ci yàlla saa bu jegee fa doon moyee mbaa mu geestu ko rek loola mën naa fippaat xolam moo ta sunu borom ni leen bu kenn geestu loolu bokk na ci xekam ya wallahu aalam bil xekami kulliha mu sunu borom ni illa mraatak ba mu def sa soxna si ndax xam ngeen ni soxna su luut ca ña nga xamante ni ñoom ñaal ku ca la bokk comme ni ko sunu borom nettali ak soxna yu luut soxna yu nuux ca beneen qissa sunu borom ni innahu ñoom day li leen nar a dal ñoom waa dëkk bi sa soxna dana ca bokk inna mawidahum asubhu alaysa asubhu bi qarib jibril daal di wax malaaka yi daal di wax yonente yàlla luut alayhi salaam ni ko rendez-vous bi ñu leen jox de mooy fajar fajar moom bu soobee yàlla ñoom du leen xare ci dëkk bi noonu rek ibni kasir boo delloo ci al bidaaya wa nihaaya wala nga dellu ci yeneen téere yi siira yi nga xam ne dañuy nettali xew-xew bi dañuy wax ni foofu nag bi luut commencé di xëccanteeg ñoom ah ñoom it xam nga comme dañoo ñàkk orma xam nañ ni loolu ab yonent la waaye nit moom da nga toll ci fecceerlu foo xam ne dootoo sàmmati orma ci lañ commencé di dagganteeg loolu ay saaga bi ñu tàmbalee dagganteeg loolu ay saaga nag ci la jibril daal di jël aw laafam rek xët leen ko ci seen xar kanam yi bi mu defee loolu seeni bët daal di silmaxa loolu mooy mbugal mi sunu borom njëkk a tàmbali ci ñoom su ko defee ci lañ daal di génn nag nga gis kenn ku ci nekk bi muy dem mi ngi làbbatu fa mu gën a ñaawee fa mu gën a bonee fa mu gën a siboo ci ay saaka ñi ngi koy daggal luut alayhi salaam di dem jibril alayhi salaam ñu tekk rek ngir li ñuy xaar mooy luut na génn dëkk bi ndax kat borom bi saa bu nammee mbugal ab dëkk dañu amar naa mutrafiya ba fasaqu fiiha ña gën a féttéerlu lay digal ñu féttéerlu gën a wane caay-caay suñu borom bu ni mu nekk sabab pour mbugal leen waaye bokk na ci doxalinu sunu borom kat nag saa bu naree mbugal ab dëkk dana seppi ña nga xamante ni ñoo ñu baax ña nar mucc sunu borom génne leen kon loolu lañuy xaar mu génn su génnee borom bi doog wàcc la nga xamante ni moom mooy mbugalam noonu luut alayhi salaam daal di bàyyi ba xaaji guddi mu buur ay kaakaama ki dëbësam jiital ak juróom soxnaam moom lànk ne du ko topp fekk na mbugalum sunu borom tàbbi na ca kaw ca kawam luut daal di génn fekk ñoom ñi ngi fanaanee mbugal moomu nga xamante ni moom la leen suñu borom njëkk a teg muy silmax ak bët moo tax kenn ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi day ju am solo day wax ne nit yi luut day lañ mas a xam ci histoire ñoo xam ni borom bi dajale na ci seen kaw ci mbugal loo xam ni musu koo dajale ci wenn xeet ci kaw suuf mooy silmaxaloo seeni bët tàbbal ci seeni kaw ay xeer xët mëdd la nga xamante ni xar suuf mëdd leen ci biir wëlbatiku taw ci seen kaw la nga xamante ni mooy ab taw la nga xamante ni moom mooy ndox daal di fay nekk mooy géej googu tey ñu tuddee albaharul mayit muy meer euh, bi géej gi nga xamante ni moom dafa dafa dee du am jën du am benn njariñ sunu borom subhanahu wa taala ñeenti yëf yi leegu ko benn xeet daal leen koy bugalee bi loolu amee borom bi subhanahu wa taala ba lu génnee nag ba dem ci la yàlla digal jibril alayhi salaam mu roof aw laafam mel ni wala mu raw sax laay wax peel yooyu nga xam ne ñooy xeeti ndaraan yi tibb suuf mu tibb la nga xamante ni mooy dëkk baak la mu àndal lépp ak seeni bagage yëkkati ba mu tiim ba jege asamaan rek jibril daal di koy dëpp sunu borom ni fa jaal na aaliyaha saafilaha ñu jël la pare woon kaw daal di koy def mu pare la nga xamante ni mooy suuf wa amtarna alayhim xijaratan min sijjilin manhud sunu borom ni ñu taw ci seen kaw ay xeer yoo xam ne ña nga bàyyi koo ca sawara mu fasirin dañuy wax ni amul wenn xeer wu wàcc lu dul borom bi da cay bind aw tur loolu mooy tawa mu tawal musawamatan inda rabbik musawama mooy xeer wu ne dañ caa bind kam war a alak amul wenn xeer woo xam dafa wadd dalul ca kaw kam war a wadd sunu borom mu ne man duud musawamatan inda rabbik mu ne wama hiya min addalimina bi baid tooñkat yi nañu yëg ni xeeti mbugal yu mel nii nag soriwut ña nga xamante ni ñoom ñooy tooñ te lool sunu borom mi ngi ko wax ci suuratu Huud moo waral borom bi subhanahu wa taala alak leen seen seeni bët mëdd leen ci suuf ba fii ñuy wax ak yéen dëkk ban dëkkoon kenn dootu fa dëkkate ba yawm alqiyaama loolu mooy fa tilka masaakinuhum lam tuskan min baadihim illa qalil wa kunna nahnu alwaarisin sunu borom mu ni seen dëkkuwaay yaa ngoog de kenn nag dootu fa dëkkate ba yawm alqiyaama fële mu ca njeneen ña mu naan fa tilka buyutuhum xaawiyatun bima zalamu seen dëkkuwaay yaa nga ne yàmbalang ci sababu tooñ gan doon tooñ loolu ba fajar ga jotee boroom bi subhanahu wa taala def la mu def mbugal ma wàcc ci seen kaw histoire yi nag di ko nettalante daanaka tegaat nañ ci ay ati at ay seeg téeméeri téeméeri at yu yàgg yoo xam ne mooy yàlla gu mel na mu amaatut ci kaw suuf ndax kéemtaan goo xam nit ñi yéemu nañ ca xeetu mbugal ma nga xam ni sunu borom mbugal na leen ko ndax mbugal kat yàgg na fi am nit ñi di ko gis waaye bu bii ni mel kat mosuñu yi ma nga luut alayhi salaam ba fi luut jógee nag borom bi musal ko wa man aamana maahu muy ña ko gëmoon ak njabootam mu ka nga xamante ni mooy soxnaam bokku ca loola firnde bu réngo boo xam ni boromum xel mu nekk mën na caa jële ni képp koo xam ni ak martaba ju mu am ci suñ borom ndeem am na ko mënta musal soxnaam wala doomam wala kenn ci njabootam fii kooka daa topp la ko neex bañ koo topp ci njub loola bu fekkee alquran jàngalu ko nit ki amul keneen ku ko mën a leeral nit ki ba mu leer ginnaaw si loolu ci ay jamono nag demaat nañ ba doomu aadama yi xam ngeen dafa am xeeti mooy yàlla yoo xam ne seytaane moo ci sa njax nit ñi mooy yàlla gu mel ni ngóor jigéen maa ngi jàpp ni képp koo xam ne borom xel la am xelam da koy sib waxuma ku xam diine waxuma ku xam diine képp ku am xel te yàlla may ko xelam di ndax xam ngeen doomu aadama yi am na koo xamante ni fitraam yàqugut bonagut yéen ci yàlla bi nee ne képp ku judd da ngay fitra ak islam muy mooñu fi yàlla pour da war a baax maanaam ku judd da ngaa war a baax nga juddwaale say way jur kay ñoo lay teg ci yoon wu baaxut seytaane dimbali la ca wala ñu teg ci yoon wu baax suñu borom dimbali la seytaane nag dafa bokk ci li muy sanjax doomu aadama léeg-léeg ci xeetu wutum bànneex nit mën naa dem ba maanaam bu essayé fii mu jàll mu essayé fa ca mu jàll mu essayé fa ca des mu bu yàggee dootul soxlaati yooya tey boo demee ci xeeti réewi Europe yi dangay ngay gis koo xam ne dana am alal daanaka xëy tabax bu ñuy dëkk dëkk na ca banque bu ñuy viré am na fa xaalis yére yu ñuy sol am na ko lekk gu neex gu nekk lekk na ko gis nga yooyu bu yàggee dafay dem ba doomu aadama yii nit ñi soxla dootu ko soxlaati faw mu essayé ay mbir yoo xam ni ca la alkaandem nar a dugg da ngay gis koo xam ne ngàbb ay xotti saako di wër ci mbalit yi di foraatu loolu moo koy neex parce que ne daa bëgg a mos dund googu nan la mel loolu mooy yóbbee àgg na ci xeetu mbonte foye boppam ci njaalo wala foye boppam ci mbirum jigéen wala foye boppam ci mbirum bànneex dana dem ba yegg foo xam ni fitraam dafay yàqu su fitraam yàqoo nag loolu moo koy yóbbu ci mbirum góor jigéen tey jii mboolem ku ngeen xam kuy dugg ci mbirum góor jigéen kenn la ci ñett ñi may bëgg a wax kii benn waaye la boo xam dafa foyee boppam ba foyee gi moo ko yóbbu foofa kee gone la boo xam ne mu xamul dara moom daa dégg riir ma rek te loolu moo ñuy yoot tey jii am na gëstu buñ doon def te gëstu boobu lenn ci lii ma nar a wax dana ca bokk gëstu boobu bokk na ci bañ ci jógee gendeeku yan ca def mooy tey boo duggee ci ecole yu bare bare bare bare bari ay xale yu góor fi ne ñi ngi dugg ci lobby boobu ñuy tudd lobby góor jigéen te yàlla xam ne ne xamul sax li ñuy dugg lan la am riir doo nga leen ci dugal du mbirum bànneex du mbirum dara riir rek ñoom xamul sax li ñuy dugg lan la loolu benn la am na koo xamante ni foye boppam mbirum bànneex moo ko ci dugal waaye am na koo xam ni mbirum alal moo ko ci dugal gis ngeen mbirum góor jigéen ginnaaw bi fi luut jógee alayhi salaam dem nañ ba mu yàgg nag mu dekkiwaat fi mu ne nii waxuma la dekki waaye dafa am doole mbir mi nekkul mbirum Sénégal kese gis ngeen jamono ji ñu toll dafa yëngatu lool wallahi mbokk yi mbir mi du mbirum Sénégal mbir mu lu fu kawe la benn lobby la boo xam ne gis ngeen ni ni ñuy waxee franc-maçon di ko di ko waxee juif yi di ko waxee leneen beneen lobee ngi nii boo xam ne fii nu toll nii gëstukat yi ñi ngi def ab sikk sàkka est-ce bokkul ci lobby yi ëpp doole tey ci àddina bi ndax banque yi ëpp doole ci àddina bi dañ leen a ngemb kooku benn la ci ñaareel bi mooy kilifa yi nga xam ne tey ñooy jiite àddina bi dañ cay bokk moo tax lo mbir la moo xam du neex a xeex donte nag borom bi wax na ca lam ca waxte loolu incha allah moom la ñuy jeexalee yonent bi wax na ca lam ca waxte loolu la ñuy jeexalee seetlu leen fi nii tey xeeti puissance yi am ci àddina bi ay réew yuy jiite àddina da ngay gis réew moo xam ni pour nga jiite ko bokk na ci pacte yi ñuy siñenteeg yow mooy faw nga nangu góor jigéen di daw ci sa réew Amérique ka ko jiite ba muy falu defe naa ñi suivre information dina nga xam lii ma wax wax nañ ko ko nangu na ko def na ko moo tax it semaine bale passé gis ngeen lañ ko fa doon voté donte am na ci population ba ñoo xam ni yàlla baaxee na leen ñoom sax wax dëgg yàlla xamul diine waaye nee naa la ku sa fitra yàqoogul même boo xamul diine l'islam da koy bañ def nañ ay marche def nañ ay bind nañ ay trac def nañ lañ man ci loola bu mu am waaye am na parce que fa doole di jóge dafa kawe France te ko jiite gis ngeen moom it kazalika gis ngeen moom it voté nañ ko fa malgré que am na ñeneen ñoo xam ni ñu ay julit te jóg nañ ñoom it doon ko bañ wala ajab kéemtaan ga mooy réew mel ni Sénégal nga xam ne nee nañ te loolu dama koy tudd rek am mën nañ tudd yeneen réew mu mel ni Sénégal nga xam ne nee nañ ay julit ñoo fi ëpp ba ni njiit li julit la sunu njiital réew bokk na ci discours yi mu njëkk a def te li may wax ñi suivre information xam nañ ko bokk na ci discours yi mu njëkk a def posé nañ ko ay question yu bari bi ñu yegsee ci question bu ngóor jigéen boo faloo loo ciy def dañu loolu dama koy bàyyi population bi gis nga tontu boobu du par hasard dafa am lu nekk ca gannaawam li nekk ci gannaawam mooy lobib nguur jigéen dafa am doole am doole goo xam ni ñaari puissance yi tax réew di am doole dañ cay ŋànk bu dee bu dëkkab diine la diine ja su dee du dëkkab diine alal ja la tey fii am na ay nit yoo xam ne ay kilifa lañ yu mag a mag a mag a mag ci côté àddina yoo xam ne ca lañ nekk loolu moo tax du neex a xeex ba ci gën a metti nag te gën caa naqari ci xol te billahi laa ciy boole am na ñoo xam ni ay nit lañ ñu ñuy askanee diine ay nit yi diine ci lobby boobu lañ tudd ñu lañ bokk ñu xam seeni tur ca lañ bokk te nag ni nu waxee yoon góor jigéen li tax nit di ci dugg ay yëf la yu mat ñett gis nga ku ñuy askanelee diine yii yëpp mooy tax mu dugg ci benn ñii yëngu ci mbirum góor jigéen dañoo saay saay gis nga léeg-léeg pour ñu am doole danañ fekk benn waay boo xam doo ci ñu taqal la ñu taqal la léegi suñ la taqalee jëfandikukaay lay doon pour ñoom ñu mën a am doole pour duñ mën a xeex duñ leen mën a xeex muy benn beneen bi ci des mooy nitub diine dafa am fu mu war a yem gis nga léeg-léeg boo ca yemul nag ba xuuse ba yegg fa nga war ta yegg ñoom danañ la képp xeeti xam ne danañ fexe nga bokk ci seen lu bi boobu ñoom amuñ ci yow aajo soxlawul la sax bëgg bëgguñu la bëgguñ nga ñëw ci ñoom waaye na nga nekk benn keno boo xam ne ñoom buñ naree daanu rek béeru ci sa kaw te ñoom góor jigéen ñi soo gisee ñu am audace di mën a wax yenn yi parce que xam nañ ni buñ ko yëngalee mu jëm kaw am na foo xam ne bu fa yeggee day wàccaat jëm suuf gis ngeen fii ci Sénégal am na koo xam ne jorut may tudd tur bi yëf yi takkarnaase ba takkarnaase dañ koo génn fi ne mi ngi États-Unis jox nañ ko benn barab boo xam ne fa la nekk xaw tuuti kon ma sañoo wax dañ koy fay sax salaire faf doole jooju la tax ñu am ko mooy dafa am ay wéeruwaay yu nekk ci seen ginnaaw yoo xam ne fii la ñu nekk kon mbir moomu mbokk yi mbir la moo xam ne fi mu nekk nii mu tiitlu la wallahi ñii topp information dëgg la nag alhamdulillah am nañu yàlla baax yëg-yëg bu fort léeg nga dégg ci koo xam dem na ba yegg ci ni nangam jiite buñ ko naree voté assemblée man ma tekki samay ndombay tànk dem sama yoon ñu mel noonu wax dëgg yàlla bu yàlla bari woon bari bari woon ñu jàpp naa lu mel nit waaye bu yaakaar ni mbir mi mbirum Sénégal kese la mbir la mu kawe te nag mbir la moo xam ni xeeti njiit yi nga xam ne ñooy njiit yu néew doole yi fii ci Afrique am na ci ñoo xam ni léeg mbir mu am sañ bañ sañu bañ la wax dëgg yàlla njiitul réew lii fi jóge dëgg la doomu aadama ku taxaw am na luñ koy sikkalee am na lu ñu koy nangul waaye kii fi jóge de bokk na ci liñ koy ñaanalee yàlla mooy position moom leeraloon na ko la feeñoon ci biti mooy mbir moom moom bëgg ko te da koy xeex loolu moom leeraloon na ko ca lam wax nag lañ koy mën a àtte waaye lu mel noonu keneen kuy woote wal islam ku nekk loolu nga waroon a feeñal waaye léeg-léeg mbir day toll foo xam ni soo mënta wañee sa àndit moom da ngay nga noppi ngir mbir yi nga xamante ni moo nekk ci gannaaw tey jii boo seetloo organisme yi nga xam ne ñoo nekk ci àddina bi li waral ñi ci ëpp doole di jàppale ngóor jigéen parce que banque yi nga xamante ne ñooy financé waate dañ leen may doole fii may wax ak yéen banque mondiale day génne budget bu rëy rëy rëy boo xam ne dañ koy jagleel ñooñu ci seen wàllu santé ci seen wàllu santé ci seen ay avocat yi leen di défendre ci loolu ci ngay xamee ni kon mbir mi nekkul mbir mu simple mbir mu kawe la tey it ay nit ñoo ci nekk ñoo xamante ni gis nga buñ fi commencé benn enquête du yegg da ngay dégg ñu ne diw jàpp nañ ko tëj nañ ko barab sàngam dañ doon sëy barab sàngam def nañ lii tëj nañ ko ñu commencé enquête ñoxoon jaay ñaari fan ñetti fan ñu daal di koy tegaat ci suuf lu tax parce que dañuy enquête ba ñu niit koo xamante ni bis buñ ko waxee ci dëkk bi àddina tukki su ko defee ñu yemale ko foofu te loolu du ci mbirum góor jigéen kese mi ngi am ci yeneeni branche yoo xam ne nit ñaa ngi koy wax léegi dañuy enquête benn enquête ba mu yàgg rek mu naax saay lu tax parce que ka ñuy enquête moom nangu na ni moo def def ji waaye nag am na ay information yu mu yore yoo xamante ni bis bu ko génnee dëkk kon yooyu mbokk yi ñu bàyyi ci xel te xam ni ab jullit de lam man mooy saa bu amee lu jub loo xam ne lii borom bi gërëmu ko mu naqarlu ko mititlu ko ci xolam ak ci làmmañam waaye am na audace mën a ñaan boromam subhanahu wa taala lan moo tax réew mi bu fekkee dañoo jóg def lu mel ni dañoo bëgg président sàngam ñu renouvelé waat ko am mandat mu yegg ci nangam réew mi yëpp yëgandoo ni nangam jiikat bu amee musiba am ngir nangam ci mbirum àddina ñu jugandoo def musiba yiñ fi xewoon ngeen gis ko ñun ñëpp ci 23 juin ba le passé woon ci ca ca ca xew-xew yi nga xamante ni moo xewoon jàpp naa ne lan defoon loola yëg-yëg yi waroon nañ koo amaat ci saa bu ñu yëkkatee lu mel nii ndegam ay jullit lañ waxuma nañ jug ñu yàq ñu toj nag déedéet waxuma loolu ndax méthode boobu it du méthode boo xam ne islam noonu lay fajee islam moom am na ay méthode boobu yu muy fajee waaye loolu li ma ci jublu rek mooy kon yëg-yëg yi ci ngay xam ne nit ñi la leen yittee ci seen mbiru diine moom lañ gën a yëg seen mbiru àddina que seen mbiru diine kooku benn la beneen bi ci des mooy boo seetloo ay kilifa ñi ngi fi ci wàllu diine wallahi benn waay bu génn woon fii mu dem ci média yi wax benn musiba boo xamante ni musiba la gum yëkkati ci kenn ci kilifa yi diine yi bu subaa nga xam ni ndekete nit ñi ñoo gëm ñu topp léegi loolu aw saaga wala aw xas wala musiba joo xamante ni daanaka àggul sax ci ci ci ci yenn dayo ya su ko nit waxoon tey bu ñu xëyee léegi nit ñi daal di cay wax léegi ana kilifa diine yi nga xam ñoo waroon a jóg ñu daal di wax ci lu mel nii dëgg la nag nee naa leen du neex a wax li tax du neex a wax mooy ay kilifa yu ñuy askanee diine dañ cee bokk billahi laa wax nag ay kilifa yoo xam ne dañ leen di askanee diine gëstu yi ñu ci def gëstu yu xóot la yoo xam ni ñi ñu koy wax ñenn lañ ci ñoo xamante ni information yi seeni loxo lay jaar ay kilifa yu ñuy askanee diine yoo xam ne dañ ciy bokk ñaareel mooy ay kilifa yoo xam ne yu mag lañ ci wàllu diine dañ ciy bokk ñeneen ñi ay kilifa yoo xam ne ay avocat lañ yu kawe dañ cay bokk waxuma ñëpp nag laa wax ñenn ci ñoom laa wax lu mel noonu su amee nag saa lu mel ni yëkkati ko dana jafee xeex waaye nanu yëg ni ab julit saabu amee yëg-yëg bu doy ni ba luut amoon ak waa këram ci yëg ni lii kat lu bon la luy yàq bal ci wàllu santé même ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def dañoo xamut waaye ONG yi leen di jàppale ONG yi leen di jàppale ñoom ñi koy def même ONG yooyu ña cay yëngu ci wàllu santé nangu nañ ni doomu aadama saa buy def mbirum góor jigéen pour pourcentage bi nga xam ne moo ko mën a fekk ci mu am feebar yu bon yu mel ni sida mat na 17 pour cent par rapport ak li mën a dal koo xamante ni njaaro kese lay def ci mbedd bi maanaam danger yi tàbbi ci ki nga xamante ni mi ngi caaxaan kooku nga wàññi ko ba muy fukk ak juróom ñaar moo man a tàbbi ci kiy def ngóor jigéen ci wàllu siddëm ci wàllu xelam ci wàllu xolam ci wàllu cëram yi nga xamante ni moom la ko yàlla bindee muy cëri ngóora amu ci benn boo dem lu dul mën nga caa génne ay yëf yoo xam ni musiba ji gën a rëy sax dékkut sax moom da koy dal waaye musiba ji gën a rëy mooy du ci sida kese waaye yeneen yi ci des yëpp day wàllaate te xam ngeen ni ñi koy am en général dañuy am ba pare am soxna dañuy am ba pare am ay coro su ko defee loolu lay wàllante seen biir bu bu yàlla dimbalewu nit ki feebar yooyu mën na ko dal te fekk moom yéen yoonam newu ci ay nit ñu ngi fi tey yu am alal seeni soxna ñooy seede ni ñoom kat daanaka alal ji leen bàyyi rek waaye amatuñ benn soxla ci ku góor ki parce que ku góor ki moom daanaka ay moroomi góoram lay jëfandikoo ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ñu ngi fii nekkul France nekkul Europe nekkul feneen kon yu mel noonu mbokk yi ñu xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañu saa bu ñu fekkee koo xam dafay def mbirum góor jigéen muy mbirum nit yonent yàlla luut ya yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam rey leen ka koy def ak kañ koy def ca kawam mbokk yi kan ngeen xam ci am yërmande ci saxaaba yonent ba mel ni Aboubacar Aboubacar ak li muy am am yërmande bi ko Xaalid dikkee ni ko waaw man damaa bett ñaar ñuy def mbirum ngóor ak góor nan la ñuy def Aboubacar dani nan leen rey ñoom ñaar ñëpp taal leen taal leen ñoom ñaar te xoolal baatab taal ni mu foore ak Aboubacar ni mu amee yërmande moo tax fuqaha yi borom xam-xam yi juyoo nañ ci ñi dañ leen taal ñi ne dañuy ba max miir ci seen kaw ñi dañ leen di rey ñi dañ leen di caw ay yar waaye li gën a wér mooy amul am na soxna amul soxna am na jabar amul jabar kum ci mën si doon la gën a wér ci lislaam mooy dañ ko war a rey tey xeeti musiba yi ñuy indi bokk na ci dëgg la dinañ indi andim koom waaye koom la muy yem ci kenn wala ñeen nga xam ngeen ne lobby boo xam ne dafa am xaalis trop nee naa leen bari na ci ndaw ñi ñu ciy dugg loolu moo ko waral li ko waral nekkul ni ñi koy def ñooy joxante xaalis bi xaalis bi ci kaw lay jógee yooyu nag ay mbir la yoo xam ne ñi ko xam ñoo ko xam ñi ko xamul réere ko waaye borom bi def na subhanahu wa taala xeeti musiba yi mën a indi ci ay wàllu feebar am na ay boromi xam-xam yoo xam dañuy gëstu ci wàllu santé ci lislaam sax laa ci biir lislaam dañuy wax ni bokk na ci xeeti musiba yi mën a indi yoo xam dafay dem ci kooru doomu aadama mën naa bañ a yem ci nit ki koy def kese waaye day wàllante ci li nga xam mooy population bi nit ki mën naa takk soxna mu fase ko fekk bàyyi na ko kooku keneen takk ko nit ki mën naa am jigéen joo xamante ni da doon ca moom di caaxaan ak kooka takk jot keneen takk ko mu wàll ko min nit ki mën naa toog bëriwut waaye nit ñi bëri daanu ci kawam loolu moo tax yonente yàlla bi alayhi salatu wasalaam saa bu ngeen gisee kuy def mooy yàlla yii wala yu ni mel yonente muy dem leen téye ci loxoom ngeen taxaw ni ko saa waay bàyyi li ngay def mu ni su ngeen ko defut di ngeen digle lu baax ngeen tere lu bon wala su ngeen ko deful yàlla dana wàcc mbugalam ci seen kaw te bu ko wàccee ñi defut woon danañ ca bokk te ñi gën a baax ci yéen bu ñu ñaanee yàlla du ko nangu mbokk yi déglu leen wax yun saa sallam ñi gën a baax ci ñi ci xeet wa su boobaa fa yadu fa yadu xiyaarukum fala yustajaabu lahum ñi ñu yaakaar ne bu ñu ñaanoon yàlla nangu ay dañ dem sëriñ diw ñaan sëriñ diw na dama ni ku mën a ñaan yonente bi dane yàlla du ko nangu lu tax yàlla mu ne lu ayna alladina kafaru bani israil ala lisani daawud wa isa bni maryam dalika bima asaw wa kaanu yaataduun mu ni kaanu la yatanahawna an munkarin faalu bokk na ci li tax yàlla rëbb leen ci làmmiñu Isa ibn Maryam bokk na ci li tax yàlla rëbb leen ci làmmiñu yonent yi leen jiitu woon mooy ñoom daawuñ terente mooy yàlla guñ doon def yonent bi alisam ci musnadu ahmad mu ni kenn day gis kuy def mooy yàlla gu mel noonu nga waar ko rek mooy la gën a rëy soo ca paree bu subaa nga nekkaat ak moom di xee reetaan kaf mel ni yow daanaka loolu naqariwu la moo tax borom bi sontar bu wàcc mbugal ci ñëpp la koy yemale kon mbokk yi ñu xam ne lii musiba ju rëy la dëgg la ñi ngi coow danañ ko voté duñ ko voté wallahi bu ñu amul sens danañ ko voté bu ñu amul sens danañ ko voté li ko waral mooy facteurs yii ma la wax ni moo ne ci gannaawam mu nekk facteurs yu am doole yoo xam ne yàlla rek moo ñu mën a musal ak ñi nga xamante ni ñoo góorgóorlu ci seeni ñaan ak ñi mën a wax wax ñi ma mën a dépendre dépendre kenn ku ci nekk def fa sa doole toll jullit bu nekk nag bu gëm yàlla na yëg ni xeeti mbugal ya wàccoon ca lu niti luut ya wallahi mbokk yi xajul ci wenn xeet waxuma laa ko moom beneen bi ci des mooy la jik réewi ñun jiguñu parce que ñooñu ay yéefar leen wal kaafiru la zanba lahu la zanba ba'da al kufri ab yéefar bàkkaar topp ko nun ay julit lañ su yàlla doon wàcce mbugal wallahi lañ cay am ñun wala ayasu billah mooy gën a rëy la ci réewu Europe yi di am lu ko waral parce que ñooñu ay yéefar lañ te yéefar islam topp ko moom mu dee tàbbi safara lañ ko toppee ñun ay julit lañ te julit dañ koy topp mbugalum àddina toppaale ko mbugalum àllaaxira ci kaw bu laakale borom noo ngi ñaan suñu borom yàlla na yàlla musal nu musal suñu njaboot lépp loo xamante ni moo nu yàqal yàlla na borom musal nu ci allahuma ansur man nasara ad din waxzul man xazala ad diina wal اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أصلح شبابنا ونساءنا ونساء المسلمين جميعا نسألك الإيمان والإخلاص والتقوى والزهد والورع نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain